a suur ah tey de moom suga ñoom ñëpp dañoo war a suur jox ñu ñi <laughs> lu ngi noonu kon di gërëm yàlla bu baax di ko sant njig njigéen nga mm. del del jox jigéen ah jig jigéen day jox jigéen mi ngi noonu kon di la ziar baax a baax nag mm-hmm. tey ji waxtaan wi tënku ci lenn mm-hmm. mooy euh, fristration boo xam ne dañ ko am vous les jeunes de l'APR mm-hmm. ginnaaw ba Macky Sall dalalee Djibril Ngom Jibril Ngom mooy waa ji waroon waa Yewwi Askan Wi ah waaw ah, dafa war euh, président dalal ko ñu gis enveloppe ba ah mhm. waa ji ne ginnaaw gi lay na ne enveloppe boobu du du xaalis waaye te xamul ni audience booy dem di jàkkaarloog président doo yor dara mhm. Mhm. c'est-à-dire pour dire que rek mhm. ni moom daf mel ne ay nalawkat lay waxal alors que booy dem audience <laughs> gëm naa ne say caabi oto sax da nga koy bàyyi ci ginnaaw mhm. doo yegg quoi pour la sécurité présidentielle li mu naqadi leen nag parce que da ngeen gis ni yéen da ngeen a jiitu ci pax mi ba pare seen génn nekk ci ginnaaw maanaam membre fondateur ba Macky doonul dara mhm. ne da ngeen gis ni muy teral ay nit te yéen jeunes yi doon sacrifié pour moom amoo leen ci dara ci yéen la wala ci Macky la waaw lii moom c'est pas la première fois ñu audience beeg Jibril Ngom ak la fa xew yëpp bettuñu quoi parce que c'est pas la première fois. ñun ñi nga xam ne ñooy membre fondateur yi ñun ñoo bokkoon ci yi. au premier tour 2012 moom wax dëgg yàlla ñoo sànni ci xaj. noonu laa ko mën a waxee. parce que comment ça fait nga sonnal ay nit. tey président Macky li mu doon incarné ba ñu jàppale ko danoo dem ba ci biir gisatuñu loolu ci moom quoi. parce que ñun xameetun ko fi mu toll nii président Macky loolu moom franchement bettuñu parce que nag président Macky Sall soo xoolee ñi ko daan saaga nday démb. di ko xas tey ñoom la jël def leen si wetam. ña ko daan sonnal sacrifié wu démb. pour mu falu tey ñoom la jël sànni leen si biti. pour yow lan moo waral lool. non si moom la nag parce que ñun wax dëgg yàlla xëy na li ñu mënoon yëpp def nañ ko. parce que man mii di wax yow mën naa ni man musuma politique. en 2010 laa commencé politique euh, fàttaliku le juin bi ñuy taal te Macky Sall yónnee ñu cent cinquante mille. Mhm. pour ñu jëndee ko essence. Mhm. ku nu jox xaalis bi da ngay bañ man maa ko jéngu woon jël ko dem jëndi essence xam nga sacrifice yooyu yëpp ma def ko ndax président Macky Sall ak ñeneen ak ñeneen nga gis ay responsable yoo xam ne tey ñu ngi feebar bay bëgg a dee nii may wax ak yow nii. Mhm. kenn jël leen président Macky sax yëwu ko. nga toog di dégg naan ministre sangam kat président Macky moo ko évacué woon wala député est-ce que loolu nga yaakaar loolu yéen na maanaam 150 000 la leen président Macky Sall. waaw 2000 joxoon pour ngeen jënd loolu dafa am. parce que dafa am seulement seulement. waxuñu ko sax pour peut-être yàq. mais dafa nekk loo xam ne ay sacrifice la yoo xam ne ñun ñoo ko defoon. Hmm. ñun ñoo ko defoon. donc duñ toog ba heure bi ñu bëgg ñoo sacrifier président Macky Sall bëgg ñoo sacrifier quand même. Hmm. parce sacrifice bi mooy lan. non yéen duñ ko nangu parce damay dégg ñu naan. Hmm, politique oto bu paan la. ñi ko pousse duñ si dugg mais ñun oto bi suñ ko poussé ba mu tàkk su naree dem bàyyi ñu ñu toj pare-brise bi. kon yéen kon yéen da kon yow euh, politique yow maanaam logique bi nga yor mooy bu ma lekk ci cere ji. dañ siy xëpp suuf. <laughs> loolu mooy dëgg. <laughs> waaye gëree que aussi ñun dañoo négocier non non masla. waaw ah, parce que ñun. Euh, gëree la ñun ñun ñun tamit. waaw ñun Pikine lañ dëkk te président Macky Sall ba ko waa PDS ne doo dugg Pikine ñun ñoo taxoon jéngu ne da ngay dugg Pikine mm-hmm. boobu xamuñu waa Fatick xamuñu waa Fouta xamuñu keneen ak keneen mm-hmm. tey bi mu sottee ñu jël ñu sànni ñu fële waaw bëgg xëcc ay mbokk xëcc leneen ak leneen ñun loolu duñ ko nangu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba mais tey ji am na président peut-être euh, boppam li ci ne bari na dëgg mooy réew mi parti beeg ñoom seen président dalal kii mm-hmm. moo ci nekk. nga ah. ne bari na. mais mais euh, mais ku ci mel ne tey exemple dañuy jox euh, mooy Fouta Tampi. Fatoumata Ndiaye. waaw gisoon nañ kaawam. ba am ñu jub di ci xeex beneen bi mooy euh, Jibril Ngom kaa mi ngi nii am na yeneen camp y a des transhumants rek bi ñu dugg maa ngi lay tooñ naan la comité directeur u PDS mhm. bu leen neexoon ñu tënir ko palais parce que ñu ko ñu ngi ci Macky Sall oh, mais est nekkul ni uude ni mu la gisee moom la lay ëwalee est que nekkul yéen a ko woon ñàkk fayda gu tax li war ci yéen dafa ko ñu ñàkku ñu fayda de seulement reconnaissance moo manqué si parti bi parce que euh, soo xoolee ñi ko mayoon 26 pour cent yi ay nit ñu diñ lañu ay nit ñu bëgg seen bopp lañu ay nit ñu bëgg Sénégal lañu. seen bopp coalition dekkal ngor sax. Euh, waaw euh, ñi nga xam ne nii tey ñoo fi nekkoon ba may ko 26 pour cent laa lay wax. Mhm. avant deuxième tour. présidentielle ah. 2012. président Macky Sall ñooñu daf leen a nawlawul loolu moo dëgg quoi parce que bu dee compétence ñu soxla am na si ñooñu. Mhm. chaque fois damay dégg naan non waa APR compétent wuñu non non loolu du dëgg. compétence yi ñu soxla yëpp am na mhm. seulement nag. danoo daje kilifa goo xam ne xëy na amul si ñun yéene yéenewuñu wuñu par exemple Macky Sall yéene wuñu ko wax dëgg non yéene parce que comment ça fait nga nekk ak ay ndaw ñoo xam ne mosuñoo politique yow nga ñëw gëmloo leen benn affaire ñu topp si di si xeex guddeeg bu suba ngoon nga dem ba falu jël leen sànni leen fële te transhumance yi sa waay Amadou su ma ko déggee tey parce que déglu discours am bi damay xam ne président Macky Sall recevoir bi mu recevoir waa ji ñàkk na lu bari parce que kii ci du bàyyi faalu Macky Sall lii la woon. bilaay dëgg la. lu ne daj na ko pour Macky dëgg la dëgg la yaa ngi dégg mu amee tey discours bi président Macky Sall defe war naa nag bàyyi xel ne am nañu parce que à travers yow man fi mu doon dama gis ni APR moom li taxoon ñuy wax APR toj na. toj na loolu kay kenn waxatu ko. waaw toj na parce que man man maa am sens ñëw si plateau mais ñi mer toog. ñëw ma ëpp fuuf. man ñi ma xam ñi nga xam ne nii APR lan bokkoon di sonn tey ñoom ñëpp ñu ngi toog seen kër jàpp seen jàmbur hmm? parce que Macky Sall ñoo gàcceel ko ñemee wax da ngay wax mu si koñ sax nit ñi naan ndeysaan xool ko <coughs> ñoom ñoo doon sonal Macky Sall tey ñu ngi nii di taxawaalu ah, loolu dafa ñaaw des nga romb nit tamit mu ne man de bañ naa Macky ndax ni mu leen sàgganee ni mu leen trahiré man bañ naa ko hmm. loolu baaxul si président Macky ngi fi ngeen bàyyi ba waa ji ñu convoqué non ñun yàgg nañ kaa dénoncé non attends yàgg nañ kaa dénoncé <laughs> parce que man émeute amoon mois de mars bële passé hmm. man waa Leral TV invité nan ma ñu invité ay responsable yi bari ñu bañ man ma dem Leral TV ba ma génnee ñu may menacé saaga ma xas ma wax ma lu nekk ndax Macky Sall hmm. ma dem porter plainte contre X loolu lépp ma def ko ndax Macky Sall hmm. mais par contre da xam ne ñi ngi defal mais est que nekkul li est-ce que nekkul li la dal nii li la dal nii. moo ñi ngeen doon reproché naan. sooy ngir bu bi tàngee du waaw est-ce que nekkul ni ñooñu li la jàpp tey. ngeen jégal ma si kàddu quoi mais transhumants yi. waaw ay caagalano. transhumant yi ñëw ci parti ci pouvoir yi ay càggalam man maa ko wax la. Zassim Memu no mais il damay wax quoi te sax. Euh, mais ji à la télé mais ji dama rus dama rus maanaam ñi may seetaan kilifa yi may seet sinon dama leen di saaga. transhumant ah yi. <laughs> Eh, rus na sax saaga wu ma leen. dama leen saaga quoi mais sinon dama leen di saaga ndey parce que ñoom ñoo yàq Sénégal gëmuñu Sénégal. parce que dañu jaay seen deret jaay seen askan jaay seen bopp ndax lan pouvoir mais changement yi defuñu dara mais ki leen dalal di leen publicité. non kooku hmm. leen xam na ne ñii xaalis mën na leen jënd. Hmm. moo tax mu jënd leen ak xaalis. ñoom ñoo woon a am ngóor am fulaak fayda woon ko ni man xaalis mënu maa jënd. Hmm. parce que mënoon na ànd ak Abdou Diouf pendant des années Abdou Diouf daanu nga dem si Ablaye Wade. Ablaye Wade defal loolu ne pendant des années mu daanu nga daw dem si Macky mais ku mel noonu du du ay citoyens yoo xam ne peut ay exemplaires lañu. waaw ah mais ñooñu tey seen njaboot ñu ngi dundee loo xam ne sax xamuñu ko. Hmm. parce que man mënumaa nekk transiment ñu jënd ma. waaw jënd dan maa jënd dèjà transiment jënd nañ ko. Hmm. may dundalee loolu ñu ma jëndee sama njaboot sa njaboot ëllëg si taxaw si dëkk bi di sonal nit ñi di yaakaar ni te seen i ak seen yaay. dañ leen a jëndoon non waxuma waxi ku mer parce que man maa ngi sant yàlla quoi dëgg la nag. politique moo doy waar. mais eh, wax dëgg yàlla yow nguur gi yóbbu na kudd yow ña ña. non attends attends ma leeral quoi. parce que aussi yóbbu nañu kudd mais ñun kuddu amuñu fa një ñun maanaam faale wuñ ñu fulaaluñ ñu dañoo sànni fële. ah par contre da xëy dégg benn jeune boo xam ne tey ñu ñoo jàkkaarloo nag moom di xeex ak moom mu ñëw ne la man de président Macky Sall moo ne nan ma defal promotion. Hmm. non li may wax nii sax dem leen ngeen jël seen caméra ngeen dem si ministère yi. Hmm. wala ngeen dem si direction yi. jeune APR yi ngeen fay fekk yëpp dañ leen di teg dañ leen a dañ leen a mettre de côté dañ leen a teg fële sànni leen sa xaj. ministre bu ñëw say jeunes ngay privilégié say jeunes ngay responsabilisé. Hmm. directeur bu ñëw say jeunes ngay privilégié say jeunes ngay responsabilisé. loolu moo mais dinañ leen fay quand parce que ku liggéey nag foog ñu fay la salaire. Hmm. mais dama la bëgg a wan ne ñun li taxoon ñuy sonn ci politique gisuñu ko. Ah. da ngay toog ni mun naa la yéen taxoon ngeen di sonn kon yéen. non euh, changement la ñu bëggoon non attends si si si changement la ñu bëggoon mais nag mais nag waaye nit ku. looy sonn da nga siy séntu njëriñ. Hmm. ñun changement la ñu bëggoon parce que président moo ñu incarné woon rupture dina am Sénégal. lii ak lii lii ak lii wax lu ne. ñu ne ah, ah kon kat kii suñ ko choisir xëy na li ñu bëgg Sénégal dina am. Mhm. ñu ànd ak moom par contre nag li li mu ñu gëmloo woon yëpp gisuñu ko. Mhm. président Macky Sall li mu ñu gëm noonu man topp ko gisuñu si dara. te département de Pikine mooy département bi nga xam ne tey ñoo gën a sonn si gouvernement Macky Sall. Mhm. jamono Abdoulaye Wade président assemblée Pikine la dëkkoon. waaw ñu amoon fa ay ministre ak ay directeurs généraux. jamonoy Mm. nomination yi fa gën a kawe PCA la. mais Abdou Karim Sall il est dans. non Abdou Karim Sall mënuñu ko considérer ministre bu dëkk Pikine quoi parce que moom or ko soo xoolee li muy def yëpp or la koy def quoi. ñun mm. pour ñun sax dañ koy fàtte des fois. parfois ñun Abdou Karim Sall dañ fàtte. li gën a garaaw si loolu mooy dafa am ay ministres yoo xam ne dañu tenir en otage président Macky Sall. Mm. te ñooñu foog ñu dénoncer leen parce que ñun bëgguñu ko yàq. ak ñetti directeur non xaaral suñu gëlee yor naa liste bi dinaa leen ko génneel ci ñeenti ministre ñetti directeur ak ñaari député yoo xam ne dañoo marabouté président Macky Sall tenir en otage di nommé ñoom waa boobu ma lay wax noonu ñoom ñooy nommé nomination yi ñu fi mujjee dégg yëpp ñoom ñoo ko def dinaa egg ma rek nomination yi ñu fi mujjee dégg yëpp comment se fait président nommé nit te xamu ko des fois toog

bale moo tax ngeen non ku mel ne Farba Ngom moo yàq wax na dëgg parce que benn ngeen jéggal ma benn giriyoo boo xam ne kenn xamu ko woon Farba ah, ah, ah, koo xam ne nii la yàlla xam doy na hmm. ah baaxu maamam mooy wër di ñaan ak di fecc ah président Macky Sall yow def la député ah nga yaakaar ne yow yaa moom sénégalais yow yaa moom nit ñi hmm. di créer ay audience yoo xam ne tegoo ko fenn mais sénégalais yi nag ñoo a Farba ngay waxal laay waxal man man Farba Ngom xamante nanu xam nga 2011 saaga na ma ndey ma delloo ko ko buntu siège national. Hmm. yóbbante na ma si moom ma wax ak moom mu saaga ma ndey ma saagawaat ko ndey mu woo Ablaye ci mbuur bi ma yóbbante woon naan ko sa booy bi dafa réew. Hmm. xamante nañ bu baax seulement nag léegi kilifa la soi-disant kilifa la ndax sàcc na alalu dëkk bi. Hmm? looloo am yow li nga wax garaaw na de. waay Farba Ngom sa waay yow xanaa da fee jógee bàyyi parti bi. bàyyi parce que ñun ñoo ko moom. APR ñoo su bàyyi di am. en otage ñoom ñooy bàyyi. parce que bàyyiwoo bi ñuy sonn ñu ñoo ko moom. duñu toog ba heure mais di ko yàq. yow yow est-ce pour voter liste euh, kii nekk fële. non non hmm. man damay lancer benn appel quoi. appelu lan. bépp jeune boo xam ne nii investir wuñ la si liste yi bul voter liste yi. Ah. benn jeune bépp jeune APR boo xam ne nii wala benn responsable APR boo xam ne nii. membre fondateur yi nag lay wax de waxuma cagay ndaw yi maanaam. Eh. jeune transhumant yi waxuma ñooñu de. <laughs> waxuma ñooñu quoi xam nga laay wax ñi xam ne ay membre fondateur lañu képp koo xam ne yow investi wu na bul voté <laughs> liste Benno Bokk Yaakaar. sawaay sawaay sawaay loolu moom appel la boo xam ne dama koy lancé. parce que parce que xam nga tamit dans la vie ah. am na yoo xam ne dafa ñaaw. waaw waaw dafa ñaaw parce que trahison bi am suñu parti bii. Euh. pour la première fois Sénégal mu soog fee am si nguur président Macky mais li ngay wax xamul responsable yi gën a bon si Sénégal ñoo ah. nekk APR. APR. Hmm. parti président Macky Sall. waaw responsable yi gën a yées ci politique Sénégal. Hmm. ñoo fa nekk. ñoo fa nekk ñoo xam ne jalousie soxor promotion jigéen ñi ni defal jigéen ñi ni nommé ah. ñëpp. Ah. promotion mooy tax ñu nommé leen. dan lay nopp la utal la nomination nobbuñu la doo am nomination. loolu lépp dafa am ci suñu parti bi góor ñi nga gis ni yenn jeunes yi nga gis ni ñoom promotion. waaw xam nga la moo leen ko may. Ah. dañuy makoro ñenn ñi. ñu utal ay gel moo tax ñu leen di wutal ay promotion ñun ñi xam ne gënoo yow xanaa non li ngay wax da ko xale yi li ngay wax dafa grave mais cest à que il parce que parce que mooy li ngay wax ni yow la engagé personnellement il faut nga jël say non yow laay déglu kay soo paree ma tontu la personnellement est bul la woowoon ci yoon tey. Mhm. na la kàddu yi nga yëkkati parce que tamit mhm. ay accusations yu grave nga mhm. di nga ko mën di nga ko mën a di nga di nga ma woowoon ma justifié ko man bul ne fii ma wooyee ma justifié ko laaj ma hmm. tax laaj hmm. Hmm. président Macky tax na man ma fanaan commissariat <laughs> ah. président Macky tax na man ñu jàpp ma fanaan commissariat mais est-ce du sa comportement moo tax ñoom joxuñu la li war ci yow mais kon xanaa ñëpp comme man lan ma parce que. ji mhm. nga boo fi amul xam-xam bu kenn amul wala nga jàng fi lu kenn jàngul te amoo teggin aussi tamit. yow di la dugal ci mbooloo sax. maanaam erreur la. Mhm. wala di la dugal ci benn structure erreur la. parce que à n'importe quel moment mën nga wax bu dee nekk ak kilifa ñu doon ay nga mën a yëkkati kàddu yi yenn kàddu yu ñàkk teggin di ko teg sa kaw. Mhm. kon yow tey ji dama nekk li lay metti nga koy kaas est du yow yaa am problème. mais du ñi nga ko ma la foofu man je suis Ah. man naanuma sàngara toxuma yàmba genzuma mhm. mais li may wax dafa ma wax mais mais dañoo poussé dañoo poussé au bout parce que comment ça fait yow nga nekk jeune nekk responsable di sonn si benn mbir ba njariñ feeñ ah. ñu génnee la tegle fële xëcc ñoo xam ne ñoo la doon saaga ndey di la xas ñëw ne leen yéen yéen koy xeexee noonu la mais ni ñu koy xeexee noonu lañ ko mën a xeex parce que président Macky noonu rek kese nga xeexee ñu xam ne yow mi yaa ngi xeex soo waxee ne discipline de parti toog leen muñ ñu toog di muñ pendant des années 2010 ba léegi ñaata at la ñu toog di muñ di muñ di muñ suñuy at di dem ñuy perte yoo xam ne nii ah. tey xëy na suñu politique woon ñu ngi ci. ñu toog ba mais li ngay wax xamu man lu ci lu ci am solo mooy bu dee nii li ngay wax am na man du benn ministre bu may sikk pour être honnête. Hmm. wala keneen parce que bu dee dañoo am président boo xam ne il est manipulable à ce point. est que moo ko tey. nga lan kon lan moo. que gars yi dugaluñ ko seen yooyu ñu gëm noonu. yan. waaye moom mooy seen affaire maraboutage yooyu ñu gëm rek. waaw est-ce que dugaloon ko foofu bu mel ni li Gaston def ci émission. soxna no kooku moom ba jéggal ma boo koy waxam. parce que kooku moom moo taxoon eh. fii ne man jaay ko sàngara la woon. xam nga ku mel noonu nag ay waxam moom man yàlla na ma yàlla musal si Gaston Mbengue. parce que man bu ma kenn tëkkalee Gaston Mbengue. si si xam jaay sàngara non attends attends bu ma tëkkalee non. dama parce que duñ toog ci plateau bi aussi ay nit dañuy seetaan. amoo benn droit toog fii naan far ba ngoom géwél la boo xamante ni da doon war di xaw ma lan di ñaan di fecc ak yooyu. Hmm. mais yaa ngi euh, xas ñi nga xamante ne ay géwél lañu. waaw maa ngi jégalu côté boobu waaw maa ma ni bul ma tëkkaloog diw. yaa ngi kii li mu def ci week-end beeg li nga wax ni c'est la même eh, chose. c'est pas la même chose la <laughs> da doon xamante ni man du ma toog ci plateau bi ah. ak foo mën a bokk man du ma nangu di ko wax ci plateau bi vraiment loolu ñu leeral ko mu leer hmm. beneen bi man je crois que président Macky Sall mi ngeen di wax mi ngi ci deuxième mandat am kon yéex yéen yéex ngeen a jéngu yéen yéex ngeen a xam ni joxu leen place ku nekk ci deuxième mandat am bay waaj dem ñu naan ñaari at ko dese ak ñetti at kon yéen lan moo tax boobu ba léegi ñu euh, jallax leen ne kaasu leen ko waxu leen ko dégguñu leen. waaw ah, soxna Betty yow. parce que discours bi daloon nga fi mais joxe woon discours. non moment boobu soxna Betty xam nga politique contexte la. ah contexte contexte la quoi par rapport au griot excusez wul après. waaw maa ngi jégalu quoi bu dee dama offensé ñenn ñi maa ngi jégalu. waaw maa ngi jégalu parce que aussi du question ne dama dama leen a yëpp dama leen a xeme ngi jégalu. ko jégal quoi moom bu ma kenn tëkkaleeg moom. parce que Gaston moo ñëw fii ne man ba may soo ñëw Ndakaaru Ndiaye dama daan jaay sàngara. Ah. Gaston moo ko wax ñëpp man yàlla na ma yàlla musal si nit. yére la wax eh jullit buy jaay sàngara yàlla na si yàlla musal kon boo Gaston su toogee di xas ay askan man loolu ànduma si parce que Gaston nag li mu def nii man dama jàpp ni dafa bëgg a chantage sax sénégalais yi la bëgg a chantage. Hmm. comment ça fait yow bi ñuy xeexal président Macky Sall 2011 kenn gisu la. Hmm. yaa ngi fay tu ak sa xaalis Gaston wala lañ ko laaj yow lan nga ko laaj. ba ñuy xeexal président Macky Sall yaa ngi toog fee kenn déggu la kenn gisu la nga toog ba tey bëgg président Macky la jox la ay privilèges tax ngay xas askan aussi man non li ma laaj danga ne ma maag Gaston ñoo yem parce que loolu laaj man dama dama dama contribuer ba pare indi indi yow nii la président Macky Sall mi ci deuxième da ngay nag yéex a dégg man maa fi nekkoon peut-être yow doo daan ma suivre quoi sama sama sama sama samay poste maa fi nekkoon mandat man maa njëkk a taxaw en <laughs> ne président Macky Sall war am troisième mandat ma taxawaat fi ne président Macky Sall man maa ko waxoon ma dégg fi ay saaga ndey lu nekk ma dégg ko fi mais nag suñu demee ba gis ne loolu ñu foogoon wala loolu ñu yaakaaroon amul ñu xam ne nag fi mu toll nii xam nga la moo des si parti bi instant bi may wax ak yow hmm. xeex moo fi des fippu man dama organiser fippu national boo xam ne képp ku bokkoon si 26 pour cent yi hmm. woo naa la si nga ñëw bokk ci parce que nag suñu yëf ñu ñu koy yàqal parce que président Macky Sall mi suñ ko seetaanee fa mu jëm baaxul hmm. foo mu jëm baaxul tey. léegi am na droit def wala. bu affaire baaxul tey kii nii day wax ne da ngay continuer di wax ne président Sall. mën na dem troisième mandat. wala na ah, troisième mandat dama social la man nee naa leen fii troisième mandat du président Macky Sall non attends président Macky Sall troisième mandat demande sociale la. demande soo gisee ma ne demande sociale la. demande soo gisee ma ne demande sociale la parce que yaakaar ba léegi des na des na si Macky Sall. yaakaar des li nga wax yëpp. waaw non des na si moom xamante ne des na si moom. Ah. non man su ma waxee entourage Macky Sall laa waxal mais Macky Sall en personne. waxuma ah. mais entourage am si boppam ñoo koy def loo yoo xam ne nii wax dëgg yàlla. non non yow li nga bëgg dafa yow Macky Sall mënul nekk quelqu'un boo xam ne président de la république. ëpp mm-hmm. information ci réew mi cultivé vacciné maanaam Macky. du mais loolu ànduma si moo ëpp information Sénégal. du am ngaa que non c' est c' est ce qu' on dit ah c' est ce qu' on dit mais mais tey nga ne ay c'est-à-dire que quand tu dis que un président dañ koy def loo mi def bàyyil mi bàyyi kon sunu réew ñun on a l'impression que ñun. man maa toogoon si plateau leeral seen kii li si réew mi bu ndem si yàlla Ndiaye Doos. Mm-hmm. ma ne leen faucon bi nekkoon palais jamono yooyu maître Omar Youm la woon. Mm-hmm. quelque temps président Macky Sall dàq ko parce que xëy na la ma waxoon. Mm-hmm. gisul na ko boppam ba dàq ko cette fois ci am na ay faucon yoo xam ne ñu ngi si pale bi. te seen pexe su jubee président Macky Sall su fi jógee poursuite nationale dina am Sénégal fii règlement de compte dina am Sénégal fii parce que ñun ñu ngi koy defloo yoo xam ne nii bés bu si Macky Sall jógul bés di nga gis ministre ak directeur yoo xam dañ leen di tëj à vie ci kaso yi parce que nag luubal nañ alal askan wi ñu ngi def ay sale boulot ñu ngi def yoo xam ne nii askanu Sénégal bés bu ñu demee jógee nañ jaay seen i jox ko delloo ko askan bi léegi premier ministre moom wax dëgg yàlla lu baax la parce que président bi mu ko fi jëlee aussi ñun xamoon na ni président mu ngi def loo xam ne ay nit ñoo ko ko eh, gëm. yow bindoon nga ne c'est bien lii lu baax la. non non non man bokk na si. non man yàlla dogal na. seulement non ah, ça ça ah, man ah. seulement soo gisee ma waxee nii c'est parce que man wax ma pour sama bopp de. encore une fois man dama gis ñoo xam ne ñoo ma gën a sonn si parti bi foofu te ñii ba léegi amuñu sax emploi amuñu financement financement yi ay ministre di ko détourné di ko yóbbu seen i village village yoo xam ne ñetti nit ñoo fa ne. Hmm. jël ay milliards di ko fa yóbbu naan ñu ngi financé bàyyi Pikine gi yoo Pikine gi nga xam ne grenier électoral la Pikine gi nga xam ne ku falu ñoo la fal mais loolu c'est pas normal. Mm-hmm. man loolu moo tax may wax mais bu fekkoon sama jëmmi bopp kese kese kese wax dëgg yàlla. Mm-hmm. man moom aw ma lu ne gaañ mais maa ngi sant yàlla. Mm-hmm. mais nag dafa jot nag ñu wax ak président Macky Sall parce que nag ñun moom la faloon. ñun moom lañ faloon de. te nag mun ñu kaa fal ñu dem ba fii nag ñu bëgg ñoo sacrifier ñun duñ ko nangu si nii duñ ko nangu si nii fi may fi may jeexalee mooy. temps bi na waaw fi may jeexalee mooy. Euh, encore une fois jeunes yi ak responsables yi képp koo xam ne nii bokkoo si liste yi bul yi liste benn bokk yaakaar bépp jeune benn bépp responsable boo xam ne kenn investi wu la sa tourné aussi jarul ngay voté liste yooyu parce que soo ko voté du am njëriñ parce que département de Dakar nag Abdoulaye Diouf sax mënu kaa gagné hmm. bu dee dañuy waxante dëgg rek mënu ah. kaa gagné mënu koo gagné non mënu kaa gagné parce que na quoi <laughs> mi ah ñu lay jaajëfal nag euh, ci teewaay bi ah, ah, nga nga baal ma yedduma la mais li Mamadou Dia daf mu sa wax benn noonu Cheikh Anta mu ne dëgg lu mu neex neex neex boo ci boole ay saaga day wàññi daraja dëgg bi waaw c'est bien ngay wax li nga xalaat mais teggin bi aussi tamit da ci am solo ah. surtout booy wax ci média aussi nga baal ñu ajaratu jërëjëf Omar Bun Xatab Gueye moom Amadou <laughs> Diallo ñu rappelé ni moom membre fondateur u APR la nekk également le responsable des jeunes de Djiddah Thiaroye Kaw fii ci boobu les parti ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ay ayca ñu dem nag régie jël li nga xamante ni moo di euh, Khourda Boussa Ndiogou Mbengue dalal ganam.